حي على الفلاح di seede ne deesul jaamu kenn ci kaw suuf si kudul moom di saxal ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamub yàlla di ndawal borom bi tabaraka wa taala mooy ki yàlla tànn yónni ko ci doomi aadama yi ñi xees ak ñi ñuul texeeg mucc ñeel képp ku gëm yonent boobee gannaaw ba nga gëmee yàlla te jaar ci aw yoonam jàpp ci sunnaam te bàyyi lépp luy bidaa mbokk julit ni noo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal sunu boroom tabaraka wa ci jëfe ay ndigalam te bàyyi mboole mi tereem mu ngi soññ sunu bopp ci loolu di leen ci soññ texe àdduna ak alaaxira borom bi tabaraka wa taala moo ko def ci diine amul benn yoon bu nit di jaar ngir amuk texe fii ci aduna am texe fële ca àllaaxira lu dul li nga xam ne mooy diine te diine joojee benn diine képp moo garantil nit ki ak texe fa yàlla mooy diine lislaam leneen lu dul diine lislaam ku ci nekk ba faatu minute buñ la suulee sa bàmmeel nga xam ne ko woon ci dara waaye diine lislaam jooja it nag amul secret képp ku nekk ci diine lislaam te jàppoo ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu salaam wallahi bu la malakul mawti seet see nga xam ne nekk woon ci dara kon bu yeboo kenn ku nekk nga xool li yàlla bëgg nga ne ca la mu tere nga bàyyi ko loolu képp mooy secret mën a texe ëllëg yowmal qiyaam mbokk jullit nii sunu ba tey day jëm ci benn saar ci alquran ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana bokk ci doxalinam ci wàllum xutba mooy léeg-léeg daana ñëw ci kanamu mbooloo mi mu jël benn saar ci alquran taxaw def ci xutba daal di wàcc julli loolu ci doxalinu yonent bi la bokk alayhi salaatu wasalaam donte nag saar bi mu ëppoon daan tànn ci wàllum xutba mooy suratul kaaf loolu la ëppoon lu mu daan xutba ca ci biir alquran waaye nag ñun dañoo tànn saar bu tudd suratul infitaar muy ida samaun fatarat di sar hamne, xamne taxuko taxu koo gudd lool waaye bokk ci sar yi nga xamne da fay netali doomu adama li nga xamanteni ni mom moy mooy yowmal qiyam bi xaar nit ni mom la sar bi di netali waye sar bi nak da lay xamal sa bop yow nit lay xamal sa bop di la wax yow yaay kan ak fan nga joge ak fan nga jëm waye sar bi yit nak dina la xamal katanuk yalla doole yàlla subhaanahu wa taala ci jaam ni ak li yàlla mën a def waaye saar bi it nag dana la xamal li nga xamante ne ni moom mooy situation yowmal qiyaam particularité yi nga xam ne moom moo am ci yowmal qiyaam ga nga xam ne fa lañ jëm ak li nga xam ne moom moo fa mën a sabab sa texe mbaa sa texe di mbokk jullit ñi suñu boroom dafa tàmbali dinu nu nettali ay xew-xew yoo xam ne kenn mëntatee ba du xew muy ida samaa un fatarat mooy asamaan sii borom bi nee na bés day ñëw mu xottaku xotteeku comme papier ni nga koy yore di ko xotti di ko xotti xottiwaat xotti xottiwaat borom bi nee na asamaan sii ngeen di gis bés a ngi ñëw borom bi nee day daal di xotteeku loolu nag dangay xam ne kattan gu rëy koy def ndax boo génnee téen xool asamaan sii ñu ne la bés a ngi ñëw mu xotteeku wallahi mbokk jullit ñi loolu boo ci xalaatee na nga ca war a xalaatee da xam ne loolee kàttan dëgg. moo koy def waaye xew-xew bu rëy rëy lay lay doon beneen ba borom ne wa idal kawaakibun tasarat biddéew yi nga xam ne moo ngi ci asamaan si day wadd biddéew yi day day wadd te ñi nga xam ne ñooy jàng mbirum falag ak yu ni mel nee nañu biddéew yi ni ngeen di gisee ci asamaan si ñu tuuti noo gën a rëy li nga xam ne mooy mooy suuf si nga xam ne ñun fi lañ nekk di dund kon asamaan si day xotteku waaye biddéew yi day day bàyyi koo ci asamaan si maanaam di di wadd wadd ci kaw ci kaw ci kaw suuf borom bu ne wa xaaru bihaaru fujjirat géej gii nga xam ne moo tàll lu ñu koy gis maanaam dafay évaporer dafay yëkkatiku exploser wu daal di fees dell daal di évaporer wu exploser exploser wu moom li nga xam ne mooy mooy géej gi mbokk jullit nii bu géej gi sàmbaraayoon rek fi mu ne di def ay biir wi ak ay vague yu am doole di bëpp di dugg ci askan wi loolu képp fitna la boo xamante ne nii ci googee doomu aadama attanu ko waaye waxuma laa bés bi nga xam ne dafa war a ñëw géej gi fees daal di takk évaporé wu loolee xew-xew bu rëy rëy rëy rëy la mbokk julit ñi suñu borom mu ne wa idal qubuur bu'thirat armeel yi dafay nit ñi dañuy génn ci armeel yi mel ni ñax yu sax ci suuf suuf bàmmeel yi day toj di xotteeku doomi aadama yi di butteeku di génn ci li nga xamante ne ni moom mooy fañ leen suuloon kenn ku nekk fañ la suuloon sa bàmmeel daal di toj nga daal di dekkee ci biir bàmmeel boobu loolee xew-xew bu yéeme la boo xamante ne ni toog di ko xalaat rek war na mën a def mbir yu baree baree baree bari ci yow léegi nag lii nga xam ne borom bi nettali na ko ndax ay nettali rek yu mu nettali nii déedéet mu ne xew-xew yii bu xewee alimat nafsun ma qaddamat wa axarat loolu moom mooy déterminer li nga xam ne mooy sens wax ji mu ne xew-xew yii bu xewee bu keroogee doomu aadama bu nekk danga xam li nga nekk woon ci kaw suuf lu ci baax ak lu ci bon xam nga fi mu ne ñun dañuy jaamu yàlla di julli di woor def li def mais xamuñu lu ci yàlla nangu ak lu ci yàlla nanguwul xew-xew yii nag bu xewee alimat nafsun ma qaddamat wa axarat bakkan bu nekk doomu aadama bu ne maanaam da xam la nga doon def ci àdduna lu ca baax ak lu ca baaxut la nga jiitaloon ci ay jëf ak la nga mujjee ci ay jëf yëpp borom bi tabaaraka taala dina la ko informé ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu àdduna bi tukkee yàlla taxawal li nga xam ne mooy bés pénc fëgg nit ñi ci seen i biir bàmmeel kenn ku nekk laa wax nga war a yeewu dekkee sa bàmmeel rasulillahi nee na kuy seqi jéego seqi jéego avancé wala arrière amut lu dul yàlla dana laaj ay laaj borom bi dana taxawal laaj la ay laaj laaj yooyee mu lay laaj da caa bokk maanaam sa dund gi loo ci def lan nga def ci sa dund gi dund gi la yàlla joxoon ngay dund tàmbalee ci bi nga majeure bay am 40 ans jóge ci 40 dem 50 ans mbaa 60 fan yooyee at yooyee yépp ana ci lan nga nekkoon kenn ku nekk waajalal ab tontu ci loolu ndax borom bi tabaaraka wa taala dana la ko laaj mbokk jullit ñi sunu borom tabaaraka wa taala mu ne yaa ayyuhal insaan bi mu la limalee lii yépp nag. ba xamal ne la nag mënoo rëcc kenn ku nekk borom bi nee na dana la informer la nekk woon adduna borom bi subhaanahu wa mun mel ni ku ñuy conseillé naan yaa ayyuhal insaan et eh, yéen nit ñi yow doomu aadama ma garraka bi rabbikal karim mbokk nit ñi wax jooju wax ju daw yaram la wax ju ñewante la wax la joo xam ne kii wax dafa mel ni ku am aajo ci ñi muy waxal dafa mel ni ku soxlaal dara ci ñi muy waxal maanaam wax ji doon nga ci yëg yaa ayyuhal insaan ma garraka bi rabbikal ee eh, yow doomu aadama mu ne ko waaw mu ne lan moo nax ci yàlla mu baax mi xoolal wax ji lu la nax ci yàlla mu baax mi xool lim jeexale wax ji yàlla mii sa borom ba pare baax lool yéwén lool tabe lool maanaam lu la nax jëmee ci moom loolu li muy tekk mooy am na nit ñoo xam ne nax nañ leen ci yàlla subhaanahu wa taala am na nit ñoo xam ne détourné nañ leen ci yàlla subhaanahu wa taala am na nit ñoo xamante ne nii yàlla mooy seen dernier programme sunu borom tabaaraka wa taala mooy seen dernier programme li ko waral mooy da gis nit ñoo xam ne seen mbirum àdduna lépp lu ñuy téyel seen bopp en main lépp xam nañ fi ñuy jaar ba am terrain xam fi ñuy jaar ba am kër xam fi ñuy jaar ba am oto xam fi ñuy jaar ba bu ñu yoree entreprise ñuy def ba gérer entreprise muy dox waaye xamul ñuy jaar seen borom tabaaraka taala moo tax dañuy jël seen mbiri àdduna téyel ko seen bopp jël seen mbirum diina jox ko benn waay bu nekk ca dëkk sàngam ñu koy tuddee sama warsi la wala sama nangam ak nangam jël diina ji bàyyee kooku mbokk julit ñi loolu jafe-jafe bu rëy la boo xam ne ñun ñoo ngi koy dund fii ci réew moo tax borom mu ne ma gharrak bi karim yow doomu adam lu la nax lan mo la devier lan moo tax nga mujjel yalla ci mbir lu tax yàlla ñoru la waye yalla mi nga xamne ne mu bax la mbokk julit ñi mbaxuk yalla la ci ñun fuñ xol gis ko wallahi mbaxuk yalla fuñ xol gis ko misal bu ndaw bi ma lay jox rek sun telephone yi ñu yor dafa am lu ñuy tuddé connexion té connexion bi xam nga né crédit mo koy doxal loy gëna consommer whatsapp bi connexion bi di dem maanaam sax dañ la koy limité dañ lay wax ne am nga nangam ci ay giga nga xam ne da ngay da ngay def whatsapp ak di connecté ak nangam sangam boo bañee rechargé waat beneen connexion bañ a jënd beneen paas da ngay jékki-jékki rek ñu yónnee la message ne la ah sëñ bi sa connexion jeex na wala ñu ne la ah nangam moo la dese nga war dem rechargé waat crédit maanaam loolu dama koy joxe misaal bu sooban yàlla mu jël suñ dund branché ko ci jaamu yàlla mbaa topp yàlla jaamu yàlla mbaa mooy yàlla maanaam bu jëloon suñ dund def ay tiyaaba tiyaaba tiyaaba nga xam ne yow sa dund li nga nekk benn batterie boo xam ne liy tax ngay dund di fonctionner mooy ay tuyaaba ay jaamu yàlla maanaam looy gën a julli di gën a yàgg àdduna di gën a nekk ndaw di gën a amuk santé yàlla na jël sa dund sa wér-gu-yaram yépp brasé ko ci lan ci topp yàlla nga xam ne da ngay jàng alxuraan di topp yàlla di doon ku baax di doon nit ku sawar di di fi gën a dund looy mooy yàlla muy wàññi di faible li xam ne mooy batterie bi di la wàññi kon boobaa doomu aadama yi duñ am suwaa ci ñàkk topp yàlla kon faw ñuy jaamu yàlla mais xoolal yàlla ni mu baaxee daf laa bàyyee mbir mi bàyyi la mbir mi nga xam ne man ngaa gis fii ci àdduna koo xam ne mbirum yàlla moom waxu ci dara ay mbiram di dox mu yor àdduna téye ko nii waaye yàlla waxu dara nga gis kuy góorgóorlu diggante moom ak boromam sonn lool ba kenn du ñaan yàlla mel ni moom waaye loolu mbaaxu yàlla képp la mbaaxu yàlla moo tax nit ki yàlla defal na ay xéewal nga jëfandikoo xéewal yow ci mooy yàlla ki yor ay bëtam yore bëtam yii di ci mooy yàlla di xool lu xaraam ci ay bëtam di ci mooy yàlla pourtant xéewalu yàlla lay jëfandikoo di mooy yàlla de ki yor ay tànkam moom di dox di jëm ci lu xaraam yor ay tànkam di dox bi jël ci lu xaraam xéewalu yàlla lay jëfandikoo dem di mooy yàlla subhanahu wa taala man su ma la abalee sama oto ma ne la oto bi bu ko dawal fii bul jaar fii bul jaar fele bu may gisee na fee jaar li gën a néew man koo def mooy nangu sama oto téye waaye borom bi da lay defal ay xéewal ba nopp daa di lay tere ay mbir sant la ay mbir yam la sant nga lànk yam la tere nga necca ba pare nag mu bàyyi la xéewal yi te léeg-léeg sax mu la kii moo baax jalla jalaaluhu wa azal kamaalu mbokku jullit moo tax suñu borom mu ne yow doomu aadama ana lan moo la nax ci sa boroom mi nga xam ne maanaam ku baax la yàlla di tudd yenn ci mbir yi nga xam ne mënaluñ ko suñu bopp te kenn mënaluñu ko kudul moom mu ne allazi xalaqaka yàlla mi nga xam ne moo la bind mbokk jullit ñi kan moo nu bind kudul yàlla kan moo mën a bind nit créé doomu aadama kudul suñu borom tabaaraka wa mu ne yàlla mi nga xamante ne nii moo la bind fa waaka mu bind la nga jub xocc dégg nga fa mu yemale la lépp mu yemale ko yemale say baaraam yemale say wagg loxo yi yem fi mu war a yem tànk yi tolloo bopp bi ni mu war a mel mu mel ko te su ko neexoon moom yàlla subhanahu wa taala mu ëppalante ko moo tax léeg-léeg nga gis ñi nga xam ne seeni cër day am problème benn cër bi su gënee rëy beneen cër ba wala bopp ba gën a rëy li nga xam ne mooy jëmm ji wala jëmm ji gën a rëy bopp bi da ngay xamale xam da ngay gis ne nit kookee day am problème mais lépp la yàlla yemale ni mu war a yem moo tax nga mën a exister mën a dox mën a nekk ci jàmm fii ay surati maashaara kabak suñu borom nee na ni ma soobe te mu dëppoog ni nga ko bëggee yow doomu aadama ma daal di lay melal noonu ba nga mel motax kenn ku nekk ci ñun manam bëggo melni dara bëggo melni ni bëggo melni manam yeneen bindafon yi doomu bëggu ta nuroog dara ndax tellement que borom bi du ko bind ci xeeti bindafon yi nga xamni mo gëna mo gëna rafet légui nak yàlla lolu xéewal la bimu mu pare mu nek kallaabal tukaddibuuna bi bidin ànd ak xéewal yi ma leen defal yépp xéewaluk naan xéewaluk lek xéewaluk bëpp xéewalu loxo xéewalu wér gu yaram xéewaluk bëgg a jóg dox dem dox xéewaluk noy xéewal yi ma leen defal yépp ànd ak loolu yéen da ngeen di weddi li nga xam ne mooy yomal xiyaam ànd ak loolu su may santaane du ngeen ci taxaw li ngeen ci war a taxawee waaye samay tere euh, da ngeen koy def te du ngeen ma am sax waaye na nag sunu borom daal di xam ne daal du ñu xamal nag yàlla binduñu rek bàyyi ñu noonu de moo tax mu ne wa inna aleykum la xaafidin am na ay malaayika yoo xamante ne nii kenn ku nekk chargé naa ay malaaka ci yow yoo xam ne seen liggéey suba ba ngoon mooy bind li ngay def ak li ngay wax doomu aadama ñaari mbir dekk na mooy li ngay wax ak li ngay def képp la mënoo def leen amul leneen looy wax mbaa looy def rek fi ne looy wax borom bi nee na boole naa la ak ñaari malaayika yoo xam ne seen lëggéey mooy bind say kàddu bind li ngay wax li ngay wax ñu koy enregistré di ko bind yowmal qiyaam ñu daal di koy becc kanamu yàlla subhanahu wa am ñaari malaayika yoo xam ne ñoom li la toppee mooy ñoom la ñuy bind kiraaman kaatibiin mooy seen lëggéey moo tax yàlla mu ne yàlla mu ne maa tafaloon ñoom seen lëggéey mooy li ngay def dañ koy xam di ko bind ci ay dossier dégg naa benn borom xam-xam di tafsir aaya bi daal di wax ne bul yaakaar ne ba nga juddoo ba tey ñaari malaaka yi la yàlla booleel ñoom ñaar ñoon dong ñooy nekk ak ba keroog ngay faatu mu ne déedéet dem noonu kon bu yàggee yow mën ngaa miinanteeg ñoom ba ñoom ñu tàmbalee am kersa dootuñ bindati mais bés bu jot maanaam ajjuma jii ñu nekk ajjuma jii di premier novembre jii ñu ne ñaari malaaka yi monte ci yow di bind say jëf ñoom bu ñu bindee ba ajjuma ji jeex ba nga tëdd ci lal di nelaw ñoom dañuy dem jël li nga li nga wax ci aljuma jëpp ñu enregistré ko bokk ko dem taxaw ci bërepp yowmal qiyam ñu xaar la ba nga ñew ci karam yalla ñu indi bu suba ci samedi ji yenen ñaari malaaka yu bes ak ay dossier yu bes ñoy ñew su ko defé mbir yi du jaxaso allahu akbar Manam doomu adama li lay xaar ak seriya motax yowmal qiyam nit dina taxaw naan mali hazal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fa wajadu ma amilu hadiran wala yaslimu rabbuka ahadan manam amna jëf yo xamne ne nga ko xeyna bang koy def wala tuuti woon na ci yow wala xeeboon nga ko ci ay kàdd yoo wax mbaa ay jëf yoo jëf fekk suñu borom noté na ko enregistré ko di la xaar ba ëllëg yawmal qiyaama naa bu neexoon yàlla du bind dara su ko neexoon du yebal ay malaayka su ko neexoon danay bàyyi àdduna ngay dund boo ñëwee mu xool la ba seppali la ne la demal dugg sawara kii xool ko ba seppali ko ne ko demal dugg na waaye doomu aadama moo doon koo xam ne kon day def ay recommandation yàlla bàyyi laak ñoo xam ne nag seen liggéey mooy di bind ak enregistré li xamante ne ni moom ngay moom ngay wax léegi nag borom bi mu ñuy dalal suñu xel ne la ànd ak loolee lépp nag bu tiit ndax yàlla ay mbiram leer na ñaari yoon képp fi nekk innal abraara mooy yoon bu baax wi innal abraara ñu ne ko waaw mu ne la fi ñoom bu ñu faatoo dañuy ne ci ay xéewal al abraar mooy ñi baax ñan ñooy ñi baax mooy ñi nangul yàlla nangul yonante bi ñiy nekk rek képp booy bu la yàlla wërsëgaloon ay teraangay adduna ba ku feebar nga jëndal ko ordonnance ku jàmmat dara nga fajal ko ko di jënd ay saaku ceeb di maye di gas ay teen di tabax ay hôpitaux te doo julli baaxoo ku yées nga fa yàlla subhanahu wa taala te wallahi boo faatoo xam ne baaxoo jëf ji yàlla gën a bëgg ci ñun mooy ñuur fonk waxtu yu juróom fajar tisbaar takkusaan timis gee ak koo manti doon ak loo manti mel bu fekkee doo julli ku yées nga fa sunu borom tabaaraka wa taala mën ngaa baax ci biir nit ñi nag ndax doomi aadama moom boo leen amalee njëriñ moom donte doo julli mën ngaa baax waaye sunu borom tabaaraka wa taala buggul ñu koy jox yàlla sunu alal yi yéemu ko sun jëmbu yi yéemu ko sun tur yi yéemu ko mbooloo miñ topp ak yéemu ko yonent bi nee na yàlla xoolut seen jëmm yi xoolut seen poos yi xoolut seen am am yi yàlla li muy xool mooy li ne seen xol yi pas-pas bi nekk seen xol yi moom la suñu borom tabaraka wa taala di xool loolee mooy lenn li nga xamante ne nii moo la mën a jural ak texe ëllëg ëllëg yowmal qiyaam ñooñoo ñi baax mooy ñi déggal yàlla nangul ko déggal yonante bi nangul ko tey góorgóorlu ci loolu mooy al abraar ñooñu nag suñu borom nee na ëllëg yowmal qiyaam ci ay xéewal la ñuy ne ñu ne ko ñeneen ña mu ne ñeneen ña nag ñoom ñoom dañuy nekk wa inna al fujjaara la fii la fii jaxiim al fujjaar mooy kàccoor yi kàccoor nag des na ko fire ci ay baat yu baree bare bari bari bépp mooy yàlla boo xam ne yaa ngi ci te mu wóor na leen lii yàlla bëgg ko nga koy def jamono jooju ab kàccoor nga atteb kàccoor lañ lay atte Kacor mooy ko xamne banexu bakanam bi kep lay servir kat bi ab kàccoor la kat musique ab kàccoor la kat bi ab kàccoor la ki tok lànk du di julli ab kàccoor la manam fek mu ngi nango don ab julit nak la wax day don kàccoor mais boo nanguutal don ab julit mom da ngay don ab yefer mom ndax ñaar yi mo fi ne da ngay don naafeq ba nga don ab yefer ba nga don ab moy ki nga xamanteni ne ni xol ba mom yalla newu ca yoronte bu newu ca waye bu julli kat di julli day ñew di julli boo ngeen di zikir day ñëw di zikir lépp lu ngeen def ci diine day ñëw di ko ànd ak di ko def waaye xol bi moom yàlla newu ca yoronte ba newu ca ay intérêt lay dàkk ci yéen moo tax muy ànd ak yéen kooku ab naafeq la yéefar bi nag mooy ki nga xam ne li ngeen di def moom defu ci dara ndax gëmu ko du ko nangu nanguwu ko gëmu ko moom daa jaar nee ngeen jaar nee kooku ab yéefar la bi nag mooy ki nga xam ne gëm yàllaang ci xol bi gëm na yàlla gëm na yorante bi waaye bànneexi bakkan yi da koo ëpp doole seexlu wut jabaru jàmbur seexlu wut njaaloo seexlu wax lu dul dëgg ay propre intérêt bu taxawé mu katch mu wax luddul deug ngir servir li nga xamné moy ay banex bakaram bu sekké yow war la bu bu bu la lebee du la fay manam mom banex bakaram rek lay servir day def ay bakar comme ni mi defee li nga xamné moy ay jamm yalla kok ab katchor la ñooñu nak la suñu borom mu né ñom fu dugg ëna yomal qiyam moy safara su tuddu jahim yalla nañ ci yàlla musal mo tax suñu borom mu yawmad din na la fay duggal bes pench yawmad din bes pench lañ lañ lañ la fay dugal muy àllaaxira gi nga xam ne fa lañ jëm te kenn mënu ko wute yal na nu yàlla def ñu doon ay nit ñu baax ba suñuy dajeeg yàlla yàlla kontaan ñun daal ñuy dugal aljanna aqulu ma tasmauna wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu kana bil muminina rahiman الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jullit ñi àdduna <clears throat> ak alaaxira ñaari yi moo fi am àdduna nag fi lañ nekk di dund balaa yàgg dañ fiy jóge dem alaaxira loolu mën ta fomm àdduna nag secret mën a texe am teraangay àdduna loolu ñun ñëpp xam nañ ko duñ ko jàngal kenn moo tax bu sa doom juddoo nga fopp yóbbu école mu jàngi ndax yaa ngi sóoraale ëllëgam bu demee ba yow muy bàyyam nekkatoo fi wala moom mu dem ba nekk mag mu am lu mën a le boppam bu école ba doxut nga yóbbu mu jàngi métier moo xam maçon lay doon mbab téer mbab dara maanaam faw daal mu man dara loolee mu man lan tey jublu mooy mën caa kër kër yi am lu mu dundee kon teraangay àdduna am xam na xam fan la ñuy jaar ba am ko waaye nag li nga xam ne mooy alaxira gi nga xam ne fa jëm te kenn mënu koo absenté kenn mënu koo wuute fa lañ jëm kooku it nag suñu borom xamal nañu lan mooy particularité am moo tax suñu borom tabaaraka wa taala mu ne alaxira googee wama hum anha bi na maanaam kenn du absenté mooy rendez-vous bu kenn dul wute teew fépp ak teewa lépp moom doomu aadama mënu koo def lu dul alaxira kenn ku nekk si ñun am na événement yu mi yoo xam ne tardé ko am na événement yu fi xew imma ba muy xew judduwoo fi mu ne événement quatre-vingt-neuf am na sama classe goo xam ne xamuñu woon lu mu xew xanaa ñu nettali leen am na ñoo xamante ne nii li li xew ba muy xew immaa ñoom du dooguñ wala ba muy xew danoo feebar maanaam taluñ ko wala ba muy xew ñoom nekk ñu fi woon kon absence dana am waaye ci àdduna waaye yowmal qiyaam nag amul absenté ñéppay teew kenn ku nekk da nga teew ci kanamu borom bi tabaaraka taala moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne amul benn doomu aadama lu dul ne da nga sa borom tabaaraka wa taala wa laysa baynaka wa baynahu tarjumaan amul kuy dox sa digganteeg yàlla di traduire yàlla di wax ko di la jottalil mbaa mu lay firi li yàlla di wax pour nga mën koo dégg mbaa mu taxaw di la peledeel naan yàlla seet ma ci sama waay la sama xarit la sama taalibe la ku amoon yar la sama dëkkandoo la sama nangam la loolu amul yowmal qiyaam borom bay wax yonent bi mooy wax nee na de na la laaj ay laaj sa digganteeg moom ba nga yuuxu yenn say loxo naan yàlla xanaa man rek nga bind ana yeneen ñi ana ñeneen jaam ñi xanaa newuñ fi xanaa man dong fi ne loolu xam lu muy teg maanaam taxawaay bi day yàgg sa diggante ak sa borom ngay xool gauche di xool droite di xalaat ku la war a mën a jàppale waaye kenn du fa mën a ñëw foofu mbokk jullit ñi jubóog yàlla képp mooy secret bi la mën a taxa nga am fa dara moo tax suñu borom mu ne wama adraka maa yawmul din est-ce que xam ngeen luy bés pénc laaj bu am solo la de est-ce que xam ngeen luy àllaaxira xam ngeen ko laaj bi li tax mu am solo mooy mbokk jullit ñi am na nit ñoo xam ne waxuñu leen liy xew yowmal qiyaam de waaw am na nit ñoo xam ne wallahi la laa la illa huwa waxuñu leen dëgg dëgg yowmal qiyaam li fay xew amuñu ko man damaa jàpp ne ci sama conscience bopp dafa am mbir yoo xam ne fii ci àdduna mënoo cee nekk yow bu fekkee ne yow cee conscient bi nga xam ne moom moo lay xaar man dafa am mbir yoo xam ne dama jàpp ne yow mënoo koo xam xamoo ko xamoo ko benn am na nit ñoo xam ne xamuñu luy xew yomal xiyaam benn ndax kat nax nañ leen ci ne yomal xiyaam kenn demagu fa ba ñëw kon la fay xew kenn xamu ko kenn demul ba ñëw te alquran nettali na lépp wala boobu am na ñoo xam dañ leen a nax si xam nañ la fay xew waaye dañ leen koo garantil dañ leen koo garantil maanaam xëy na dañoo gëm ay doomi aadama yu leen wax ne noo amul problème yomal am boo fa demee dañ lay laaj noo defoon ak diw sàngam rek bu ko defee diw sàngam moom dana chargé wu mbir ya wala nangam nangam bu ko defee nga dalal sa xel ci loolu ah déglu suñu borom li mu wax de yàlla mu ne ma adraka maa yawmu diin est ce que xam nga bés penc summa maa adraka maa yawmu diin ma ne ma ne déglul ma ne est ce que xam nga bés penc suñu borom mel ni dañ ko ne tontul mu ne yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah mu jeex tontu bu gàtt ñaari question la laaj tontu ko ci benn tontu mu jeex ñu ne ko luy bés penc mu ne yow mu yow ma yow ma maanaam benn bés la du ñaar du ñett du ñeent benn bés la ñu ne ko waaw luy xew mu ne bés la boo xam ne laa tamliku nafsun amul benn bakkan bakkan la wax bakkan amul kenn kuy dund moo xam ab yonantu la mbab kilifa diine mbab kilifa aada mbab ustaaz mbaa waajur bu góor mbaa bu jigéen mbaa nijaay mbab xar kenn ku fay taxaw yor ci xam-xam wala maqaama wala ay may wala daraja bu mën a tax nga mënal fa nit dara suñu borom nee na amul bu samay kàddu waxi yàlla la bu fekkee ne nag yow xam nga ne amul kenn ku ginnaawam yaatoo yaatu waaye bu tol ni nga ñëw ëllëg yow mal qiyaam mën a làqatu ci ginnaaw kookee sa digganteeg sa borom kon luy solution bi solution bi yàlla nettali na ko ci ay saar yu bare bare bare ci alquran boo demee suratul nahl suñu borom nee na la man amila salihan min dakarin aw unsa képp ku jëf lu baax di góor mbaa jigéen wa huwa mu'min fekk ba ngay def lu baax loolee yaa ngi doon ab waay gëm fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba borom bi nee na danaa la may dund gu teey gu sell gu baax àdduna ak alaxira muy benn ñaareel ba ca suratu rum suñu borom mu ne man kafara fa alayhi kufru képp ku lànk bañ weddi nee na sa kaw képp lay këpp la ngay def wa man amila salihan képp ku def lu baax fale fali anfusihim yamhadun nee neena xamal ne lu baax loolee sa bopp képp nga ko defal boo demee suratul li nga xamante ne ni mooy suratul fusilat man amila saalihan fali nafsi boobu moom bokk naa bokk na ci gën a leer man amila képp ku def saalihan jëf ju baax suñu borom nee na fali nafsihi sa bopp képp nga ko defal ku def lu baax sa bopp maanaam kenn du jëfandikoo mbaaxu kenn léeg-léeg nga dégg ñu ne diw sàngam ñëpp la defal lu baax wala baaxu diw sàngam wala sa doom ji wala sa waajur déedéet loolu amul yawmal qiyaama fi ñuy jeexale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa mos a toog ba mu yàgg rek mel ni ku tiite ci ay nelaw daal di woo Fatima di doomam woo ki nga xam ne mooy baayam du ndaw muy muy Abbas daal di woo ki nga xam ne mooy bàjjanam di Sofiya dajale leen ñoom ñii woo Ali di rakkam daal di ne tàmbalee ci doom ji ne ko Fatima yow day man maay sa baay. li nga dégg nit ñi di ko wax naan yaa rasulallahi yow ndawal yonant bi yow ndawal yàlla loolu lañ koy woowee yow ndawal yàlla mu ne bu loolu bu mu la nax de xamal ne sama alali àdduna yii day lépp loo ci bëgg rek fabal doomu aadama nekkul ci kaw suuf ku ma gën a koo xam ne man maanaam moom laa gën a bëgg ko yow sama daggiti xol nga sama daggiti xol nga yow Fatima sama doom bi jigéen ji waaye xamal ne fa yàlla day lu ma la fa dara bu yeboo na nga jaamu yàlla ngir texe lu mel noonu baayam wax lu mel noonu rakam wax lu mel noonu na kon kooku dégagé na ay responsabilité li waral nag ñu indi wax ju mel nii di ko fàttali nit ñi yokkuñu ci wàññiwu ci ndax waxi yàlla la yokkuñu ci wàññiwu ci ndax waxi yàlla la mooy mbokk jullit ñi damaa jàng benn xadiis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dataa wax ne at yi nga xamante ne ni moom la sama xeet di dund maanaam moo ngi ci diggante soixante ans ak quatre-vingt-dix ans soixante ans ak 90 ans li gëna a gudd la wax li gëna gudd at ñi gëna gudd at sama xet la wax de ñu ne ko mooy ñan mu ne ñi dund ba 60 ans tek ci ay bénéfice ba ag 70 ans yonent bi ne na ñooñu ñi gëna gudd fan ci sama xet leneen lo passé lool rek yaa ngi ci ay bénéfice ay bonus yo xamne chaque heure yalla mën na koo couper nga dem kon limi tek moy yow bo gor gor lo ba lakk 40 ans manam takal say bagage te xam yaa ngi dem 40 ans lo ci tek ludul 20 ans yépp la jeexal kon ki nga xamante ne nii romb nag 40 moom kooku li war a gën a nekk yitteem mooy mu xool jëf yu baax yi kontaan loo yàlla mu ne ca ak jëf yu safaanu yi mer loo yàlla mu bàyyi mbokk yi li mooy xel de li mooy xel ñun nag dañuy topp àdduna di kër kër yi nekk ci di dem di dem di dem di dem di dem ba lëtt reete àdduna la demal toog léegi leen nga lëtt reete sax nag. toppaat ci nekk ci am courtage ak di def courtier loo dégg lu ne man laa may alal nga ne ca sàggane waxtu yàlla yi moo tax man ñeem ñeel naa borom karaw yu weex dama leen a ñee borom karaw yu weex yi nga xam ne yàlla wërsëgal na leen xawma ci luñ nekkoon nag lañ nekkoon ñoom ak yàlla yal na yàlla jéggal leen waaye xawma ci luñ mënoon a ne waaye borom karaw yu weex ku yàlla wërsëgal nga dund ba karaw gi weex te sa yitte subaab ngoon yëpp mooy jàkka ji fa xanii an laka maa ngi lay félicité de yow mu yor karaw gu weex te mooy jàkka ji ak sa kër fajar nga dem jàkka ja ñibbiwaat kër ga tisbaar nga dem jàkka ja ñibbiwaat kër ga tàkkusaan noonu timis noonu bu ngénte amee nga dem bu dëj amee nga dem ba pare dellu siwaat ci biir kër gi waaye yal na yàlla dog yal na yàlla dëgëral la ci loolu loolu de moo ma gënal borom béjjaa bu weex bi nga xam ne da nga koy romb ci gaara place yi di ko romb ci damye yi di ko romb ci PMI bi di ko romb ci yu ne mu ciy dugg di dugg ci ay métier courtage ak bi wax lu dul dëgg te di ko tey koo xamante ne nii maanaam tànk baa nga àllaaxira benn baa ngi mu nekk ci loolu ñun ñii di ndaw it nag yor ay karaw yu ñuul danoo war a tiit de li tax ñu war a tiit mooy lan mooy dara sotteegul ci ñun te bés bu jot rek mën na ñoo dem maanaam suba rek mën na ñoo dem lii kenn ku nekk da nga ko war a xam nekk ci loolu te liy xew ci àdduna bañ laa perturbé gaa yaa ngi ci réew mi di wax ay projets yi deux mille cinquante ak deux mille trente cinq ak di la tagal ay programme ak yooyu boo deful attention yooyee da lay këf bonut dara newu ca waaye boo deful attention da lay këf nan la sëñ bi àdduna bi jeexagut di nga fi yàgg rek nekkal nanga ci yooyu ngay nekk ba jékki ne këppit daal di dem wuy ci sa borom te boo jiital woon ay jëf yu sell yu baax dund diine ju tegu ci alquran ak sunna fa ngay màtt sa baaram di ko weccax daa sori wut yàlla na yàlla musal ci loolu rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tudi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma salli ala wa ala muhammad qumu ila salaati yarhamukum allah